asalaamaaleykum mbokk internet du Sénégal TV amati naa mbégteeg bànneex bu baax a baax di leen fekk ci seen émission bi nga xamante ne moo di nekk nu jigéen kër jeeg gi maanaam sama biir boutique tey la ma waa Sénégal TV fekk si ci lan sama xeetu jonge sama xeetu jonge sama xeetu baax baax sama xeet yu baax sama xeet yi nga xamante ne yéen internet Sénégal TV yéen a koy wër ba pare di bañ ne carrément ani ah, moomu ko man naa ko moom maa leen ko jàngal ah. lépp loo leen fi gis man maa ko moom kër jéeg ji laa lay tegal de ci chez tey ngeen waaru internet Sénégal TV ne woon naa leen duma leen bàyyi benn yoon te duma leen mës a bàyyi dama leen di yëg maa leen te kaw dënn lii laa wax Bamba topp ma tuuti ma wan yu baax jëlal li ma la doon wax doo ko réccu benn yoon avec chez maman tout est possible da am parfum de chambre am li nga xamante ne moo di cuuraay am li nga xamante ne moo di serviette dara loo bëgg fii nga koy fekk ci chez maman <laughs> da ngeen di caaxaan jëlal ma lii ah man xet bi sax daf may yóbbu man daal bëgguma jikko maman man ngeen di xeexal dootoo leen ko defati dafa tàng te am na borom kër yu bari yuy daw ndax gooye bi ñuy gooye néeg bi parfum de chambre ngi nii kaa leen seet si ma bientôt di ngeen am lu baax mën lu baax di defanteeg yéen lu baax léegi-léegi lay doon ci kaw ak madame Cheikh am na lu des de li ñu war a waxtaanee ci kaw la xam ngeen ko min ngeen ko muy ki nga xamante ne moom la ñuy wax madame Thioye ah madame Thioye damaa daal di kër jeeg ji ma daal di koy moom ba am ci sama boutique xolal ma yu baax lii ku jonge doo ko mën waaye baax ba ma waa lii laal la tamit ah man daal bëgguma seen ci ko képp ku bëgg lu baax sooy fekk si ma man ci jonge <laughs> doyu ma bay des lii ma ubbi nii rek ñu naa la muy daal def fi gilli macha allah ku ko bëgg fii rek koy amee buti gi maman kër jeeg ah xanaa ma bii xet non sama caméraman a ngi dee te man bëgguma lii daal man daal bëgguma lii waaye fekk si ma nank rek yippoo yu rafet xam nga ni képp ku joŋewul woon ku nekk rek da ngay daal di joŋe force avec maman tout est possible xoolal ma lii rek ma tey nga waaru daal ma gis nga li nga xamante ne moo nekk sama biir boutique gis ngeen parfum yu baax yi serviette yi daraay nee naa la daal sax boo bëggee fii nga koy am mais affaire bi jeexagul de ndax yeggaguñ ci cappaandaw bi muy kan madame Thioye ak lan thème bu doy waar thème bi nga xamante ne nii képp ku ko dégg di nga xam ne dañ la yee madame Thiel mi nga xamante ne moo di kër jeeg moom mi nga xamante ne moo di conseiller waatee di waxante lu baax di defante lu baax moom la ñu fekk ci kaw daal di waxante ak moom lu baax mu leeralal internet yu Sénégal TV waxtaan ak ñoom guider leen bu ko defee di ngeen ci am solution di ngeen ci am li nga xamante ne ni moo di jaamu ah baa ma danga may daal di topp ndànk ma dem xool ki nga xamante ne moom laa di tàmm di pelloo rek That the country things, but.